waa jànq ndaw da ngeen di jàllam ñëw leen ñëw leen koo leen di laaj hôpitalu Colobane adu ah, fii yéen ca ca kanam la a ah, kon fële la tout droit foog ne sax xaalis bi ma yor moom ngeen mooy toppee jërë ngeen jëf laa ilaha illallah yàlla suñu borom jigéen daa bëri pexe ñi mbaa toppul ma ña dem de ñu mel ne ay mbott yu ndaw ah alhamdulilahi rabbil alamin cinquante mille mën mbëkk faal ma kaaja ji ba yor samay cinquante mille wala jënd ji samam xar jërëjëf sëñ mu tafa la foofa jërëjëf alhamdulilah léegi xam nu may def ma dallu ba ci kanam tuuti mu doog wut samam xar bis bi bi bu jubsee ko maanaam tabaski bu jubsee borom kër gune ngay gis muy ndaxte ndaxte ndaxte ndaxte mel ni kuy daraw mais yàlla muy suturaal doomu aadama yàlla na yàlla suturaal jërëjëf ah. alhamdulilah Uh-oh. Uh-oh. gone eh, defal naa eh, eh, sëñ wuy ma sëñ bi salaamaaleykum sëñ bi eh ma ah da nga doon nelaw kaay kaay wuy ma kaay kaay kaay am na lu mu jël si yow man yàlla ba calme ba. lee du sama calpe sama calpe mi ngi ci sama dënn. xay kii am na lu mu jël ci yow. he da nga doon nelaw wuy ma sëñ bi. yow doo def laal la dala dala kii nee da ngay dimbale daal dimbale yaa tax. Ah, la am sàcc la. moo ko jël ci yow. Eh. kay yow eh. bàyyi ko bàyyi ko mu man kat damay def si yàlla tax nga naan mën naa ko ba. man jëluma fii dara defal ndànk may ma xam woo ma merde wëlbatikul jërëjëf. waaw kii may ma rek baax. waay taxawal man ci sàcc wax. yow ngay sàcc. ma wax la. waaw yow kii eh suñ bi bàyyi ko ma bàyyi ko ah kon yow kii nii la yow. ma rek yow yow da ngay témoin rek. kii mooy nguur su gàtt si nga xam ni si. waaw bu guddi jotee kenn ku nekk muy góor muy jigéen ci lañ lay yóbboo bànneexu ba. yow kay li moo taxoon ngay nelaw. Fuuta tàngi nguur oh! kaay kaay kaay kaay. du may ñëw. jërëjëf kaay kaay. ah. nga may ma xam nga yow man man man ngaa témoin ni kii moo jël sama jur waaw mais am na lu des. lu desum la. barke bi man xiyam la kabar dugal naa fi chamil yu mat sëkk kii delloo na ma sama jur góot nguur su gàtt si nga xam ni yoo xaloon na góor yoo xaloon na jigéen yaa foog sama xaalis yow. sëñ bi kan moo xaalis. yow yaa foofu sama xaalis. ay sa xaalis que sàcc sa jurgóot ba ko ko nga war di waxal. sëñ bi day moom bu wax ak man de. kii day wax kii day wax kii kii kii ah. allo fan la féete ànd ak man ay waxi sàcc nga. waaw lu ma <laughs> di nga ba di nga ba di nga ko ba di nga ko ba laa wax. <laughs> sama xam ko ba sama xam sama yoon. waaw dugub sàcc ma jàppal la ko. dugub xam fii moo tax réew mi kenn mënut a def lu baax. waaw ah? waaw loo def ñu fay la lu bon. waaw xaj sappoot. xaru tabaski kon dagan nañu tabaski barke bi mal xaam la tabaski ren jii ci lay wéyee nit tee ko. di ko jur góot di ko jur góot ba bambay <laughs>